Touba macha allah dafa nekk jàmm si loolu nekk nga xam si bu baax waaw gi moom agsi nañ ci jàmm ak salaam ñëpp agsi nañ ci jàmm am na ñu jot a des yoon bi ñoo xam ne agsi wuñ su ma jublu cinq personnes yoo xam ne sedd yi moo leen eskant ndax fii dafa xaw a sedd xam nga dafa commencé dugal sedd loolu moo tax te ndekete ñoom lu ñu ëndi yére yére man pour man Pape foog naa euh, saag boobu mu euh, defoon yoon noonu rek ay yére ni ma ci nekk ndeketee benn ensemble boobu kese la indi waaw moom daanaka bi ñu nee suba la ñuy teel ci la ci la ci la ci la ci la wàcc waaw boo ko na loolu nag nag suñu yéene du woon loolu suñu mooy tegoon ko si atum seex ak seeg jàmm moo nekkoon suñu yéene ci moom waaye xëy na yàlla nii la dogal. na ma lool nag tiis na ma lool fa dëgg yàlla jooy naa ko ba bëgg dee nag waaw jooy naa ko bay bëgg a dee fa dëgg yàlla jooy naa ko ba bëgg dee maa ngi téye sama loxo yi ba mu wàcc sama loxo fa yàlla ba mu wàcc sama loxo yi ma téye ko téye ko neuf ci guddi ba cinq ci fajar ba six heures maa ko uuf nii fa dëgg yàlla joxuma ko ma sàmm joxuma ko ma deema hmm. ba yàlla def suba ga noonu bi fekk am na ñeneen ñu ci doon wàcc gars yi ne nañ leen nañ leen sànni ndax bu ñu leen sànni bu ñu teeree ñëpp dañuy tëj ku nekk cinq mois cinq cinq juróomi at juróomi at dañuy bi ma gars yi waxee loolu ñun ñëpp ñaari déggoo ci loolu ñooy comme noonu la demee kon il faut ñu bàyyi leen ñu dem géej ci lañ bàyyi ñu dem géej waaw loolu moo tax